bisimila mbokk internet yi dal leen ak jàmm ñu ñëwaat ak yéen ci mbirum penc mi Thione Ballago Seck mi ngi wëyal layoo ba ca yoon xëccoo bi ci wàllum yoon ndox ci diggante ki kile di Thione Ballago Seck ak ku ñuy wax Alioune Badara Diagne mel na nii ba jamono ji jeexagul bu ñu sukkandikoo ci journal Les Échos njiital kuréel gii di Ramdan noppeegul ci xeex bi te dafa fas yéene dem ba jeex ànd ak loolu mi ngi wëy di sàkku ci ki nga xamante ne moom lay jàmmaar lool di Alioune Badara Diagne ngir mu fay ko alalam gu ñu xayma ci 200 millions mu wax ne moom la fay ngir lu jëm ci wàllu defaraat xew penc mi bu ñu sukkandikoo ci journal bi ba tey dossier bi mi ngi ci phase de déposition d'écriture te avocat yi nga xamante ñoom ñooy layal kii di Thione jot nañu déposer seen conclusion ca boobule conclusion ña ngi wax ne bi yoon dañoo attaqué kii di bailleur bi nga xamante nii moo seq xëccoo gi ak kii di Thione Seck sàkku ci moom mooy mu fay leen deux cent millions maanaam ñaari téeméeri millions ci suñu xaalis moom Alioune Badara Diagne mi nga xamante jaaree ko ci société bii di Badara Sen Média ca tribunal de commerce di sàkku ngir ñu delloo ko li lee di indemnité d'occupation mi ndax Alioune Badara Diagne la mu jàpp si nga xamante ne ki lee di juge bi jotoon na génnee ab bataaxala di ci leeral ne ki di Thione Ballago Seck dafa war a génn ca penc mi mel na ni Thione Seck moom génnul ca saasa booba ba tey ma nga woon ca boîte ba loolee la Alioune Badara Diagne jàpp ne nekk gi mu fa nekk ginnaaw ordonnance bi nga xamante ne jóge na ci juge bi ngir mu génn daf ko ko war a fay ndax yoon mayu ko woon askan benn yoon muy wéy di fa nekk ba tax ci ab xayma goo xamante ne jot na ko amal moom jàpp ne ne kilé di Thione Ballago Seck yoral na ko lu toll ci fukki million ak juróom ci suñu xaalis lu doy waar mu mel ni xeex bi dafay rek tàmbali ndax ku nekk ci ñoom ñaar jàpp na ne moromam moo ko yoreel xaalis te war ko koo fay ki nan ko samay ñaatéeméeri million ka ca des naan ko samay fukki million ak juróom mbir mi nag yoonanga koy topp te jàpp nañu ma ba suupa atte ba ci ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mu ut mi ñu ne ak ku ci mënti yoreel moromam daal olof njaay nee na atte bor fay la jërë ngeen jërëjëf Tactic TV mi ngi leen di jaajëfal